sangu jigéen ñi ci dunya jaaratullaay sangu jigéen ñi ci dunya jaaratullaay mu jaara sangu jigéen ñi ci dunya jaaratullaay jigéen ñi ci dunya jaaratullaay asalaamaaleykum waa Touba TV salaamaaleykum monde entier Sénégal yëpp waaw maa ngi leen nuyu leen ziar waaw di kontaan nag si invitation bi ñu invité ñu waa euh, Touba TV di kontaan si ñoom bu baax a baax waaw waaw di kontaan si ki nga xamante ni moo ko jiite ba si si gën a ndaw waaw dëgg yàlla maa ngi bég si ñoom bu baax a baax a baax. waaw di sant yàlla nag bu baax a baax a baax di jëli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw di gërëm itam sama borom kër bi nga xamante ni moo tax ba lii lépp am moo ma ñaanal ba tax lii lépp am maa koy ñaanal yàlla gudd fa ak wér si barke Seydina Muhammad di ñaanal itam sama waajur bu jigéen moom tamit moom tamit ñaanal na ma maa ngi koy ñaanal tamit gudd fan ak wér ak góor yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw man maay Atika nag Atika borom musóor yi yaakaar naa ne man siiw naa maa ngi fépp macha allah maa ngi si site euh, yëpp macha allah waaw. waaw loolu maa ko dàkkantale sama bopp ndax man ma yàgg bëgg musóor waaw man ma yàgg bëgg musóor daanaka depuis ba ma nekkee xale ba léegi dama ko daan fowe waaw di ko fowe man suñu suñu suñu organiser dara sa suñu kër sax ñëpp man maa leen jël di leen musuur waaw di leen defal ay création ba tax yi ñëw nii may def ventre en ligne waaw man boo bu ma joxee sama numéro téléphone rek soo ma woowee man tout le temps damay nekk en ligne moom may la ma la may jot ci saa si. waaw man nag ku bëgg si musóor yi 77 532 25 52 boo bëgg sama numéro téléphone waaw. waaw yomb na sans dépend rek si si si si quelle qualité bi nga bëgg ak euh, nombre bi nga bëgg ndax man damay jaay en gros. jaay itim partitaay waaw yomb na yomb na même boo ñëwee itim soo ma waxee rek man dinaa xam naka laay defante ak yow waaw mën na see am man yenn saa yi sax damay maye musóor waaw yenn damay dugg si réseaux yi ah dugg maye musóor sama sama euh, client yi sama sama soppee ñu ngi si réseaux sociaux yi ma may nañ ay mhm. waaw léegi léegi bii moom bii mooy mooy élastique bi bi bii nii la mel gis nga waaw da ngay ñëw dugal ko sa biir bopp soo ko dugalee da nga koy xëcc soo ko xëccee da nga koy tourner rek génne ko kanam boo ko génne kanam rek yaay xol ñom luma la nexé rek wa bu la amna ñi nga xamanteni dañu bëgg lu reuy comme genre demee nit ñi dañu bëgg lo xamanteni bu xaw reuy am ñi nga xam dañu bëgg xam xaw yam yaay xol luma la nexé rek nga yemale ko fofu yi nak moy yu marichu yi yi moy yu marichu yi yi da ngay ñew rek tek sa bop rek bàyyi bobu wa bi tamit bu marichu yi da ah bu su nekk couleuram rek yaay xol façon bu mu la nexé rek ak motif bu mu la nexé rek nga defe ko non wa bu am pic gis nga te fay and ak yëru tubab yu ànd ak wolof waaw dafa xew gis nga bu rouge bi dafa fermé wu nii dafa am ñi nga xamante waaw dafa am ñi xamante ne duñu duñu mën teg ay genre greffage yooyu wala ñuy muuru dañuy ñëw rek daal di koy sol rek mu daal di dem waaw mu ne waaw ah, mel na waaw noonu la mel nii lay mel. waaw di kontaan encore une fois bu baax a baax waa Yacine maa ngi kontaan si yow bu baax ndax yow borom baax nga macha allah di kontaan aussi si maam Fatou macha allah ndax moom moo waral lii yëpp ak jaara macha allah waa di kontaan si waa télévision bi yëpp waaw. doole si kaw ba si suuf waaw accueillir ngeen ma accueillir bu nice macha allah bég naa si lool waaw di wax itam sama jëkkër moom tamit di ko gën a kontaan itam si moom ndax lépp moom la ndax lépp moo waral lii coow li coow li moom la ak sama waajur bu jigéen ah. katam mi nga xamanteni ni sama jarbaati jëkkër la moom laa wacc sama kër sha allah moom tan bu jappal ma si bu baax baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp sama mbokk jëkkër yi ñëpp ak alaaji basiru bi nga xamanteni sama rakk jëkkër la mom tamit mu jappal ma si bu baax baax waaw di leen remercier nak di remercier sama am di jàmm yëpp ak wa fam chic ma ngi leen remercier bu baax baax ndax ndax ba dama am benn groupe bi nga xam fam batante la ñu mat 100 et quelques personnes man ndax man duma and ak ko xamanteni du liggéey man liggéey la xam ndax c'est la juddo sama famille yëpp sama waajur bu jigeen liggéey rek la xam moo tax ma am fitu dem ñi si liggéey macha allah di leen wax ne nag képp kuy jigéen na jóg takk li euh, sëram jóg liggéey nga xamante ni jamono bi kenn amul liggéey rek moo la mën a euh, may lu bëri ndax euh, nit ñi bëgg na lu may mais amuñu mais liggéey rek moo tax nga mën àgg fa nga mën ak moo tax ñu lay respecté fonk la xam nañ xam ñu yow yaay kan waaw numéro téléphone bi di 77 532 25 52 alhamdulillah kër na ndegay mu baa li ma baala xaay maam jaaratulaay